mais voilà donc tey jii ni ka nga xamante ne jël na nga xool euh, le président jomaay fii mu jëm. mu leer na leen danoo jëm ci processus li ñëpp bokk ñëpp jot ci nga yolos yolos yi nank ne man nag wax dëgg yàlla luubalee naa fii yëng nangam nangam mi ngi nii kenn waru laa jébaane dañuy jël koppar yi te bala nga dem c' est ça le principe du droit léegi lu nuy wóor ni moom mi wax ni ah man de lii laa jël loolu la. moo tax ma ne. c'est avant avant procédure ah, ah non non. parce que naa ëpp loolu kat. bien sûr lii la rek bien sûr bien sûr. c'est-à-dire yan mécanisme la ñu am ba mu wóor ni. non non non waaw xam nga rapport yi dañoo yitteel xam nga euh, rapport yi nga xamante ne xam nañ ko. Hmm. ak euh, du du dañuy ñëw rek bàyyi la nga jógee ne le ne woy man da fukki laa jëloon mi ngi nii. waaw déet dinañ ne la euh, du du dañuy apprécier. l'État ak seen service de contrôle bañ xam ne nii la. Hmm. nga ñëw ne d'accord naa nii la am mu ngi nii. Hmm. ñu téye nank ne la demal sa mais attention ça toujours toujours ce n'est toujours pas Diomaye. justement il est toujours pas Diomaye là c'est le système judiciaire alors loolu li tax après état di ko xam mooy dafay dugg dans le cadre d'une loi de finances rectificative. voilà moo tax département justice ki ko nar a occupé ci fond ci ministère bi ñu jëm nii. mu jar a bàyyi xel te dinañ ci ñëw. Euh, sur ce point ak sànq ñu ngi wax tamit ci fichier bi je pense que les deux. oui d'abord d'abord bi euh, mooy euh, wax dëgg yàlla euh, dañu war a am une moom ce que j'appelle une présomption positive au départ bu fekkee ni nit ki moom dafa juddu ci réew mi doon sénégalais. Mhm. am nekk citoyen sénégalais dañu war a am jort bu rafet ni kii c'est un bon citoyen te ah. un bon citoyen voté ci la bokk. donc nañ ko ko bàyyil sauf que ce n'est pas une obligation parce que on est ci régime droit la ñu nekk mm-hmm. boo xam ne nit ki am na droit mm. def lu ko neex donc nañ ko may loolu yëpp doole boobu yëpp ba nga xam ne après moom il le choix de faire ce qu'il veut ou de faire ce qu'il mm-hmm. donc ay machin ak ay dañ ko war a dindee ak ay pré non c'est compliqué et c'est relou naka la formation politique yi di di natte pour mën a bàyyi xel kat ne ah gox bii fii mën naa fi am peut-être temps wala temps d'électeurs ñoo fi nekk su ma defee jéego côté bi dinaa fi peut-être par rapport au pourcentage ci ay calculam je au niveau des QG est-ce que bu ñëpp inscrire rek ci fichier bi. Mhm. Euh, di nga mën a natt natt boo xamante ne dina la jox ay chiffres yu la permettre nga basé wu ci. xam nga loolu loolu formation politique bi la ay association la ñu c'est privé il faut ce qu'ils dañu bëgg jël nguur ñoom ñooy xam na ñuy euh, euh, kiyee seen bopp jën seen bopp jën loolu loolu waruñu ko li ñu war a suuraale mooy nit ki doomu Sénégal la juddoo na fi citoyen la on suppose que ni tant que mi ngi nekk en bonne santé tant que mi ngi bëgg jóg même bu nekkul en bonne santé sax may nañ ko possibilité pour nit yóbbu ko pour mu dem voter ji l'essentiel c'est que il est citoyen sénégalais parce que daf ci am droit et automatique te moom Diomaye Faye dix huit dix huit ans la wax. Mhm. majorité man je ne suis pas d' accord j'ai eu à faire des propositions avant loolu il y a quelques mois quand je dis je crois que mos naa ko wax fii. Mm. à la naissance. boo juddoo ba nga am sa certificat de naissance boobu ca euh, centre d'état civil bi ñu lay jox may na la ñetti weer pour nga dem yóbbu ko pour wane ni euh, sa doom juddu na te yow mii di bàyyam ak ndeyam ngeen di doon ay sénégalais seen doom la kon automatiquement day nekk sénégalais ñu enregistré ko. buñ ko enregistré tant que mi ngi dund musuñoo gis certificat décès ci moom ba mu am 18 ans automatiquement on lui octroie justement. non seulement sa carte d'identité mais ci biir carte d'identité ñu def ci am na droit voter wax gi jeex lu tax ñuy xaar ba 18 ans c'est automatique wala war a nekk tant que doomu sénégalais ça nous permettra sax. comme ñu bi. non du obligation non foofu yeewaguñu non mooy mooy nga juddu nga juddu nga juddu nga nekk citoyen sénégalais nga juddu nga nekk citoyen waaye tant que yaa ngi nekk citoyen citoyen dafa am ay limites bu dee majorego xam nañ ni amuloo droit voter mun a dugguñ la def ci carte euh, mën a guñ la def euh, euh, ci fichier bi fichier électoral bi waaye dès l'instant que ni sa 18 ans ñu ne suba lay mët à minuit nii minuit bu jotee suba minuit automatiquement am na lu lay balancer immédiatement ci fichier électoral bi ki nga xam ne aussi nekk am na 18 ba ñu balancer ko ci liste euh, ci fichier électoral bi bu bu bu suñ déggee ni am na benn certificat de décès boo xam ne ci kaw turam la ba ñu vérifier ko xam ne nit ki làqu na. Mm. ñu fichier bi moo koy génneewaat immédiatement. le digital ah voilà c'est tout ah. c'est simple. donc donc la dématérialisation. Euh, léegi nag bés bu élection amee jour bi ñuy tëj mbir yi jour boobu ñuy tëj mbir yi ñu ne parce que jour sàngam mooy élection yi jour boobu bu boobaa xam nañu. ñii nara a voté ci élection yii di ñëw dans quelques semaine parce que nii lañ leen tënkee nombre de personnes tant ñoo nekk ci fichier électoral bi yaa ngi dégg léegi bu boobaa nag après chacun fait comme il veut fichier boobu ñi ci war a bokk ñu jox leen ko tànnal leen ko mu mais mais ku bëgg a yaa xam looy def mais ñun seetuñu ay parti politique noonu la war a mën fu am dara a mën n'a qu'à déployer sa propre stratégie ñun suñoo nekk si l'essentiel c'est que Sénégal ñii fi nekk ay sénégalais lañu ñii am nañu droit de vote parce que kenn fàtte wax ñi ñu tëj ñuy tëj aussi ci kaso yi te te ñu perte seen i droit civique fichier bi moo leen di génnee bés bu seen mbir mi jeexee seen temps bi jeexee ñu delluwaat leen automatiquement te coow li jëm en France da nga ñëw en France da nga ñëw nga dugal sa loxo rek nga voté nga jàll si leneen waxee digitalisation de mais il a il a il a bien fait c'est juste que rek man leen rek laa ko bëggoon joxaat comme xel mooy euh, buñ ko commencé ci 18 ans yi boo juddoo ba nga am ñetti weer dañ la war a automatiquement yóbbu ñetti weer lañ la may depuis xale bi mu juddoo pour ñu def ko ci fichier bi ne kii diw jàngam tant que deewul wala dara kiiwul tant que dara jotu ko wax dëgg yàlla nañ ko bàyyi ci biir bu fekkee ni nag ci diggante bi amagul sax 18 ans ba pare mu décédé ñu génnee ko automatiquement bu amee di ah bah si man man man xam nga non man xam nga man foofu benn benn benn tuuti crainte rek laa fa am mhm. mooy que ni nous savons tout ce que nous vivons avec qui ne sont pas sénégalais. fraude pas faute. maanaam am carte sénégalais. merci beaucoup y a des non sénégalais qui qui ont des cartes d'identité de. non ci juddu la wax pour ñu vérifier. déjà la sa ñaari parents yi sont non xoolal boo juddoo. xoolal ma termine gis nga xoolal boobu. ñiy sàcc carte li muy wax fële de yéen déggul euh, sàcc carte d'identité boo buggee boo boo juddoo boo juddoo ba am ñetti weer ñi war a xam ndax yow sénégalais nga wala déet ñoom dinañ def seen liggéey à la sax bu fekkee na nga dépenser une autre idée qui me comme ça à nga def plus de trois mois alors que trois mois lañ la mayeen pour nga déposer affaire bi dañu war a am une commission au niveau du tribunal boo xam ne moom mooy vérifier ndax yow mun nañ la may nga jàll wala déet parce que dépassé nga délai bi ba pare avec des vérifications approfondies par rapport ak yow sa propre citoyenneté sénégalaise loolu benn la woon ci goxi ñaar gox bi waaw gox bi xam nga bu ma déggee ñuy wax ay bon transaction en général c'est un cas exceptionnel. yow yow yow yow euh, Pa Moussa. négocier oui mën a négocier mais xam nga aussi un président de man pour man waru mën a taxaw. naan ñëw leen li ngeen sàccoon. Hmm. ngeen indil ma ko. soo leen ma ko indilee man dinaa leen delloo sax 10 pour cent yi pour ndàmpaay man bi ma déggee ndàmpaay damaa tiit ndàmpaay sàcc. non il a parlé des prêtres non. xam nga non dama ne man xam nga li am importance xam mooy lan. mooy xaalis bi. bu ñu ko seetee ba gis ko wala ñu soupçonné ne am nga xaalis dinañ ko vérifier comme ñoom ñooy état. Hmm. am nañu ay moyen pour chercher ay preuves ba gis ko c'est simple on récupère les sous. mais est-ce que de l'argent enterré par exemple y a y aura des machines pour détecter. non xam non waxuma la non du argent enterré. xam nga xam nga yow bu ma la soupçonné. <laughs> Euh, ni bu ma la soupçonné tam foo ñu que daa mel day suul xaalis. laaj ah, oui parce que non loolu li mu wax sax mën na mais anam ah, li mu wax nii mën na nekk am na ñoo xam ne ay coffre la ñu am seen i kër. Ah, gis nga dégg ay ay ay ay ay ci temps wu Ablaye Wade bi dégg ngeen ay ay ay ministre ak ay ay président assemblée nationale yoo xam ne seen doom yi dañ leen doon même à la douane doom yi ñoo leen di këf ay cent millions euh, temps yële sax directeur de un directeur des impôts et domaines euh, après dafa dem sax euh, mais euh, moom amoon na problème bu gaaw son neveu a récupéré énormément d'argent mais daf ko nëb nëppal pour bañ coow gi bari temps yële passé rek avant avant avant nekk fii ki ko mujjee woon nekk ki ki ki ko non xam nga lu man gis nga non je ne suis pas ah, <laughs> non man man man man gëstu kii gëstu rek laay def j'essaie de de chercher mais xoolal mais benn affaire la mais c'est que loolu loolu loolu bu ko def parce Euh, euh, dañ xam nga sutura bi ngay wax baax na quoi. mais foofu dootul affaire sutura affaire yëfu jàmbur la. pas man dama bëgg a comprendre mm. lan moo tax rek. Mm. Euh, président Diomaye bi mu waxee loolu ngeen dégg ko ci rek ñi fi jaaroon. mais loolu mun na tekki tamit suba nga xëy Aliou nga gis kuy doxalee naka su dul noonu nga nga artu. mais man comme ça kilifa yi xam wala nga teel a arrêté kilifa yi war a jug. pour régler loolu teel kaa lijjanti lu tax ñu war a xalaat rek ne li mu wax ah. c'est justement destiné ñi fi non xam nga non man pour man destiné wul ñooñu kese mais dama bëgg rek ñu def ko une réflexion d'ensemble parce que gis nga normalement dans un pays normal waru bu ñu xoolee nit xool déclaration fiscale am hmm. war nañ ab xam à peu près kii ñaata lay gañ hmm. Adam vous pas obligé yow ñu nga may wax man yow lii nga gagné man am naa droit man état dute ci yow sa déclaration yi nga ma defal. parce que tout simplement am naa yu ma gis. xam nga euh, arab inspecteur des impôts yi ñoom xam nañu def nañu gestion de patrimoine xam nañu normalement boo xoolee nit ak ba at dellu si man personnellement mun naa la wax à ndax kii même bu fekkee nday def semblant di nëbbatu. am na ay gestes qui ne trompe pas. Hmm. forcément da ngay gis ni kii yokkee na yokku na. léegi nag ci yokkute boobu. moom normalement mais réew mi tey ji nii man gars yi toogoon fi nekk élection présidentielle yëpp man j'avais envie de le dire mais Déthié Fall yow ñaata nga fay impôt daaw est-ce que sa déclaration fiscale ñaata nga ko teg. Ah. seen il suffit juste de faire une déc chaque année normalement ci say revenu da nga a def une déclaration boo xam ne moo lay permettre nga xam ñu xam yow parce que li ngay déclarer xam nga mooy lan mooy lii laa gagné ci loolu ngay gagné la ñuy dépendre pour jël ci ay impôts. impôts ou sur le revenu ou sur votre société ou sur votre mm-hmm. yooyu yëpp ko organiser normalement. coow warul jib parce que bu fekkee ni yow daaw am nga ma ñetti 4 x te gis naa nga tabax ñaari immeuble ah. daawu euh, alors que daawu jéeg benn 4 x nga amoon hmm. te amoo woon immeuble suuf kese nga amoon man wax dëgg yàlla gëm naa ni sa sa sa sa non graaw mun na nekk vous pouvez gagner de l'argent mais mu mais gëm naa ni nga jël terrain bi dem ah, waaye ci diggante bi waaw ah, non non amul problème mais boo jël terrain bi dem banque banque lebal la hmm. mais terrain boobu ak kër kër yi nga tabax immeuble dans un pays normal gis nga étage sax étage boo yokkee ay étage da nga war a yokk impôt taxe foncière yi da nga ko war a yokk. ay ay solution nga fi ak ay xalaat. taxe locative par exemple mais mais tabax sa kër à vocation d'habitation. waaw nga fay ko te doo ko xam nga yooyu yëpp xaalis boobu man ci yooyu laa bëgg gars yi di dem récupérer muun yi parce que gis nga loolu loolu rek mën na dem ba cinq mille milliards. Mm. yow amoon droit am trois cent mètres carrés yow trois cent mètres carrés sa kër man ma am deux cent mètres carrés man ak yow li ñuy fay. taxe foncière muy tolloo parce que yow yaa ma ëppale espace boo amee quatre étages man ma am benn étage wax dëgg yàlla étage chaque étage da nga ko war dañ ko war a calculer gis naa en France mus naa ma jox exemple ndaw rek amee bàyyi benn man la quoi sama cas la benn fenêtre boo xam ne dama ko ubbi dama ko ubbi te waruma ko woon ubbi ci cave bi parce que cave bi pour mu am lumière euh, euh, kii bi Euh, entrepreneur bi euh, daf ko sóoraale woo ko woon mais après ci biir la ñu gis ni parti boobu day leen dem donc cave leen te man dama bëgg a cave di leer ndax ay bagages yi ma fa def mu am lumière di jour quoi léegi nag mu jox ma xalaat pour ñu couper ko bi biñ ko couper biñ ko daggee ba def ci benn benn benn benn fenêtre ci ñaari côté yépp quoi selon soleil bi fu muy génnee je t'assure que ni sama m'a coûté je sais plus un peu plus de deux cents euros en plus de la taxe foncière xam tax parce que dama parce que man déclare bi may déclarer kii wu kër gi plan wu kër gi. niñ ma niñ ma ko calculer fenêtre boobu bokk ci woon. d'accord parce que c'est une sorte de confort boo xam ne da ko war a fay en plus. il faut mm. que ñu tàmm di fay. ñu toll foofu il faut ñu tàmm ñun. mais dañ dañ koy ko delloo xaalis bi nañ ko récupérer rek aram on récupère l'argent dugal ko fi ñu ko war a dugal ba pare di surveiller même ñi ñu jàppagul boo leen gisee ñuy am ay bien te seen déclaration fiscale lu daaw. Hmm. ak bu ren bi benn la y' a quelque chose qui ne va pas. sauf que nag l' des impôts xëy na peut-être foofu lay amee ay milliards. <laughs> parce que bu la waree taxer cinquante millions. Hmm. mu taxé le 10. Hmm. nga jox ko 20. mu jël 10 yi séddale ko booyam yi yi muy liggéeyam. bu si amee cent par an. wala 50 par an. bu defee 15 ans de service. mais bu ma nee mënul nekk milliardaire c' est impossible. day par force. 15 ah, ans de service defee 30 ans. dañ gën a yokk balaa ma sauf que ñi falu nee nañ ñoom ñu ngi nii. Ah, moom comme li muy wax paasan laay relancer rek ñi falu <laughs> nee nañ. effacé ko léegi laay def. 15 ans non semaine <laughs> ah, passée question bi ak Cheikh Goudou bëgg bëri la. xam naa li ñuy def moo ko <laughs> itam laajal. dama xaw ma ba mu jigéen si ay relance. ñun ñu woon ñu woon di wax ay fichier comment faire pour dugal ci nit yi sans pour autant ñuy xaar muy nekk ay révision ordinaire ou exceptionnelle foofu da lañ nekkoon ba tarxiis ci am am yi nit yi nan la ñuy def ba ñu delloo sutura si Aliou àndu si mm. <coughs> donc am na noo